dama ne ci àdduna bi prix arachide dañ koy fixer moment d'agri ba ñuy ba bay ndax baykat yi ci àdduna bi yëpp Amérique baykat bi bala moo ji jaay na gerte waaw signé na contrat xam nga boo bàyyee ba baykat bi pare nga doog di fixer moom mooy yow yaa ngi bay mais xamoo looy jaayee et yaakaar naa loolu prix de revient ci ñun ñuy jaay dañ ne bala ngaa def dara calculer prix de revient yi dafa nekk habitude mais yaakaar naa mën nañ ko. niñ koy fixé léegi mënoon nañoo réunir jëpp paramètres yëpp fixé ko bu boobaa tey boo demee ci ci baykat bi tey mën nañ ko mën na jaay gerteem sinon dañ ko bàyyi aveuglement nit ñi dañ koy jënd informellement ci mbëppat bien bari na baykat yoo xam ne ba ñuy ji jaay nañ mais dañ ko jaay ci loo xam ne ni basé wul ci benn calcul dañuy fexe rek ba ba wàcc prix bi ba nga xam ne ni buñ fixé doo am problème benn commerçant doo doo <laughs> dofoo nga baal ma bay dem di jënd gerte avant ñu koy bay ay deux cent cinquante da ngay kay wax waa ji ne ko 150 laa koy jënde pour bu pare bu prix bi 210 kon état bi war naa xaar gën a moderniser ak seenaa ndax seenaa tamit vraiment léeg-léeg dañuy wax état mais du état secteur privé la seenaa war na secteur privé rek la état da leen di encadré war naa xalaat nan la war a def ba nga xam ne ni prix bi daf koy fixé bu nawet bi commencé.